tàmbalee bisimilahi rahmaani rahim euh, ñaan yàlla jeexale ko alhamdulilahi rabbil alamin julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa euh, di ñaanal ñëpp jàmm ñaanal ñëpp rek mooy sénégalais yi nekk ci sénégal ak ñu nekk ci bitim réew ak julliti ci àdduna bi ak képp kuy mbindeef moo daj ñëpp maa ñaanal ñëpp jàmm ak am na solo monsieur le xam nga ni tey actualité bi kan la coupe d'Afrique des nations tey ci dimanche ji ñu nekk tey sénégal dafa war a football final di waa égypte xam naa ni du yàgg la match bi lan nga ñu ci mën a wax tey Sénégal ñu ngi xaar coupe bi de. waaw c'est une demande sociale ah c'est une demande sociale je crois que joueurs yi xam nañ ko. mais euh, avant ça dama leen bëggoon féliciter. d' accord nañ spécialiste yi wax nañ l'équipe monte en flèche. Euh, petit à petit lay wone ses valeur am na cohésion bi di ñëw. mais livré nañu un excellent match euh, que lors de la demi-finale ñu gis un Sadio Mané qui a montré encore une fois que même bu ko FIFA deful le meilleur joueur monde par ses talents. il a montré que c'est le meilleur joueur du monde en tout cas en Afrique wane na ne keroog euh, li muy football su déterminé comme un lion Sadio ne dara mënu ko téye donc dugg na ci surface yi euh, deuxième bi bi gis nga kottu bal bi jaar ba ci li de bi génn jaar ci. dégloo gars bi xam nga def benn retrait gars yi taal yi match bi plié wu dolli ak ci business bi mu def à la dernière. Euh, minutes loolu mooy montrer que donc il a la différence en tan que vedette en tant que star de l'équipe donc moo koy féliciter féliciter toute l'équipe am naa ne joueurs yi miinaguñu leen comme euh, équipe bu 2002 euh, bi. Aliou Cissé Aliou Cissé dafa dafa dafa dafa option génneel ñu ay joueurs yi nga xamante ne ay xale yu ndaw lañ yu déterminé yu war a gëm ne li leen président Macky Sall wax ne leen waxuñu final coupe lañ wax. loolu la sénégalais wax président mënoon na ko wax fekk du bëgg-bëgg sénégalais yi mais fii la ñoree fii la ko waxee. daj na mooy ñun on exige la coupe. léegi nag loolu lenn rek laay ñaan wax. yàqkat yi vraiment nañu noppalu quoi nañ jël pause. ñuy ñuy pronostiqué. <laughs> oui non su ma wax yàqkat yi du pronostiqué yi. mais ñi nga xam ne dañuy social pour équipe bi bañ am ndam. ah am na. mais ça existe loolu Sénégal loolu ko téye tout le temps dañu naan xaram demoon na ba neex te loolu je crois que c'est un manque de patriotisme iñaan la loolu ñu koy def sax bu ñu dee safara lañ jëm. man na nag xëy na am na ñu ci tooñ dégg naa ay histoire ay anecdote xaw ma dëggal wala du dëgg ay kilifa yu doogoon di def seen i mbalaan gars yi ñëw te ko ne nee leen yéen doo leen tus ñu mën ne ah bu dee duñ tus xam nga Sénégal dootu fi jël coupe. yooyu bu amee il faut ñu jéggalu leen ci turu xale yi ko defoon xam ne xale yooyu représenté wu Sénégal euh, bu dee ñeneen ñi nga xamante ne ay maamal lañ vraiment nañu fexe ba ñu ñu jël pause jël jël congé ba lundi <laughs> xam nga ñu bàyyi gars yi ñu fi savouré une couloir Euh, sportive une gloire footballistique une gloire de de l'unité du Sénégal qui peut. soxla nañ ko ah. oui dañ ko war a ressentir Sénégal nekk en fête dans tout les coin du Sénégal euh, déjà dans commune. Euh, ah loo ci nar ba pare loo ci nar wala balaa ñuy yëpp ci commune bi Sénégal Égypte du yomb de ñun amuñu ñoom ñuy ut seen huitième titre. xanaa nag tey ah. yeyoon nañ ko de. waaw nañu yàlla faral parce que d'abord du point de vue individuel nous avons la meilleure équipe. du point de vue classement la meilleure équipe nous sommes donc euh, du point de vue yaakaar yaakaar bi ci ñun loppee parce que amaguñ ko ñu la ñoo ngi wut ay trophée di ci dolli huitième comme tu di mais <coughs> yàlla bu bu insister ah mu wax moo bi. Hmm. ñu la ko war a jàppale quoi pour la première fois. ñu ñu perte ñetti yoon final tamit kenn ñaanu ko. ak yeneen yi ñu perte depuis 1965 à nos jours. Euh, talent yu bëri jaar nañ fi bu xalam demoon na bay neex la ñu wax. Hmm. moo tax ñu ñaan yàlla yàlla jàppale ñu. ci barke Seydina Mohamed. wax football du dañuy def danse dem concours Burkina Faso wala magistrature wala yeneen bugg nañ Sénégal am raaya. ñaanal leen te raaya aussi koppar lay jox jund ay milliards mooy ñëw ci investissement mu dem ci infrastructure xale yi gëm football ñu mu leen tabaxal infrastructure à la base euh, ñu ciy dund dund ci loolu ñuy dund ci leneen dund ci leneen donc loolu seen wàll moo aaye bon may ñaan yàlla rek yàlla faral ñu yàlla jàppale lañu parce que Algérie bii bi ñu dugal keroog final ba biw biw jinne la kooku dafa <laughs> naa yàlla leen faral ba bal bi naaw xaw ma dafa dal ci ab euh, drone bu doon naaw wala yi wàcc ñëw dugub yooyu c'est c'est c'est désolant ah. donc euh, may wax loolu li ma def ci commune bi nag mooy loo ci nar euh, ba ba match bi amee ñu gagné dafa am dakaar ñu dem pale génnee président Pikine Nord jeunes yi sama buntu kër la ñëw génne ma. loolu mbégte la de. voilà après ma victoire à l' élection. c' est la preuve que jeunesse bi reconnaître nañ ne man maay seen maire. sama kër mooy seen palais. ñu ñëw génne ma ma ànd ak ñoom dugg sama oto bi ma doon campagne def caravane ànd ak ñoom vraiment def le tour. li ko dagg sax mooy dama fekk benn oto fiir benn xale ci tànkam. Euh, ñu ñu ne ma monsieur le maire ma gis ñuy dàq oto bi di ko dóor. ma leen di yuuxu ñu ne daa am xale bu mu fiir ma wàcc. arrêté suma caravane jël xale bi dugal ko yóbbu ko waa Boda ñu ne rajo bi baaxul ma yóbbu ko hôpital Thiaroye fa lañ ko rajo faj ko donc pour wax ne jeunesse bi si nañ ñëw nañ ca ca caravane boobu dañ ma laaj fan zone d'accord loolee ni tontu exclusivité bi fii ci rajo Rewmi FM euh, Rewmi FM maa ngi wax doomu réew mi nekk Pikine Nord comme ñoo ngi ci mi FM waa réew mi te dëkk Pikine Nord xale yi jeunesse bi mag ñi ñëpp ñu bëgg sport ci sama buntu kër foofu ma tëjee woon sama meeting de clôture bi foofu muy seen lieu de foofu mooy seen seen carrefour foofu laa leen di may benn fan zone fan zone nag cher na bëggoon naa koñ bu nekk ma teg fa benn wala euh, axe bu nekk wala zone bu nekk ma teg fa benn mais dafa cher jamono yi ay 2 millions la leex benn wala lu mu lu tuuti boo amee 1 million 500 ngay am simel yi donc bëgg naa leen defal foofu benn sa fan zone euh, jël naa toutes les dispositions comité d'organisation bi réunir na euh, sécurité yi jël nañ ko loué nañ siège yi et tout cela ànd kook sonorisation pour que ñu ñu ñu seetaanandoo ko après la victoire ñu fête ko d'accord sport nag sport la donc ah. il faut prévoir toutes les alternatives mais li ñu gëm rek mooy avec cette meilleure équipe sa fois-ci ça doit être la bonne et que Sénégal gépp yéene ko parce que jullit yéene la am ah. donc nañu yéene euh, yaakaar yàlla mu bañ a tas suñu yaakaar mu jàppale ñu xale yi tamit góorgóorlu ñu feete ko jour boobu su pare alors ñu continuer show concert après nag ñi mën a caravane di festiver ñu bàyyi leen ñu caravane donc loolu laa loolu laa décidé may ko waa waa commune bi di wax ñëpp xam naa ñëpp duñ fa xaj ñu hmm, ñenn ñi nañ toog seen kër seetaan ko ñenn ñi ñu fa xaj ñëw ñu doo ko vraiment mu nekk un moment de fête. am na solo kon askanu Pikine Nord yéen a ko déggandoo maire bi jot na leen may fan zone li nga xam ni moom moo jëm tey ci dimanche ci incha allah wax na ko foofu nga xam ni foo la defee meeting de clôture bi ci élection locale yi ñuy génn élection locale yooyu ñuy génn sax. xale yi aussi ñaan nañ ma leneen. mooy dañu bëgg a seen koñ yi. def ci ay vertures rouges def ci ay banderoles. taaral ko taaral ko ñii di def ay set setal donc ñoo loolu aussi jël naa toutes les dispositions pour quartier yëpp. vraiment je dis les tous les 18 vert jaune rouge ko ba mu saf sap loolu jël naa les moyens financiers euh, identifier naa zone bu nekk yan cible jeune ñoo koy gérer donc pour que Pikine Nord vraiment ñu nekk en fekk avant le match. bu ñu fàtte étoile bi. incha allah lu am solo la wax ci tey àddu ci li nga xam ne moom moo jëm ci élection locale yi nga xam ni génn nañ ko euh, monsieur le maire Amadou Diarra falaat nañ la ngir juróomi at yi. nga daal di euh, continuer liggéey bi mel ni askanu Pikine Nord dénkaat nañ la seen bopp. waaw euh, maa ngi lay gërëm Wemba di wax ne. Euh, ñoom lay gërëm. waa Pikine Nord awma seen fay. waa Pikine du juddu. du du alal du xam-xam du taar du dara yaakaar la rek ma yàgg mbappat ci politique sama yàlla def ma bëgg sama xol politique di politique ba jamono ji ñu gis ne man maa ngi woon parti démocratique sénégalais ma joteeg sama parti ñu gàtt ñu dàq ma en 2019 élection présidentielle parce que parti bi daa amoon candidat ma ne leen candidat bi du baax muy Karim ngay jàppale ma di dikkee ñaaw ma dem jàppale ci biir parti bi le député du parti le président du groupe parlementaire parti nekk avocat candidat bi Karim nekk avocat sunu leader Ablaye Wade ma jàppale kooku ñu ne ma faute la ma leen déet. sanctionné la. nañu réfléchir politique. boo xëccee ba mu dang bul xot continuer mu dagg da nga intelligent nga yolomal. nañu def Karim def ma dikkee parce que parrainage bu ñu defee Karim kese ba parenage bi rejeté ko conséquence ne rejeté ko dootuñu mën a dugal keneen fekk na day fekk bay wéy mbuus naan Karim baaxul nañu wuti keneen loolu du mën a nekk comme nag yoon mayuñu loolu dugal kenn ba mu ñu rejeté ko ñu dugal keneen nañu dugal ñaar. fexe ñaan ñëpp motal parrainage bu Karim jàllul pour des raisons de blocage politique ma Madické jàll ñi yéene woon woteel Karim woteel ma bu ko defee ñu yóbbu président Macky Sall deuxième tour. ñu dem ma Karim Diallo parrainage Madické Diallo parrainage ñu yóbbu ci constitution dossier yi ku nekk war a motal conseil conseil rejeté bu Karim parce que article L 114 ak L 115 du code électoral moo wax ne après sa condamnation le code électoral l' article 31 dafa xam ne ku am 5 ans dootoo am dootoo am 4 euh, droit d' inscription donc rejeté nañ inscription te benn pièce sur les 9 yi ñu demandé woon waxuma sax nationalité comme loi bi wax na ne ku ñu condamné plus de cinq ans da perte sa inscription ministre de l'intérieur refusé jox Karim carte te carte d'identité ci neuf dossiers la ñuy laaj Karim manqué le neuf dossiers ñu rejeté ko aussi simple. looloo dal euh, Khalifa Sall donc ñun xamoon nañ ko parce que jàng nañ droit finalement Karim Diallo parti bi mere ñu ci yaay bi ñu leen yaay daal ñuy dàq. ñu dindi ma parmi les sec dix huit conseillers du président mag euh, Abdoulaye Wade dindi ma membre dindi ma yëpp ba ci commune Pikine Nord où j'étais le patron du parti ñu recevoir point E kër Ablaye Wade une délégation samp bureau bu bees à mon insu di jaay ay carte dem ñooñu recevoir leen président bu bees bañ fa tànn ak secrétaire général bi ma remplacé ñu dem recevoir leen jox leen ay carte ne leen yéen a fi toogal PDS loolu mooy man dàq nañu c'était en 2019 2020 2021 je suis resté ans aw ma may doxal sama mairie di bëggal waa Pikine Nord di daw seen yitte ba ministre la jeunesse ñëw fii di def euh, pose première pierre maison tàllal la loxo tàllal ma loxo yi nee ma tontul ma ne ko duma ma tontu damay laaj sama askan ma dajale imaam yëpp ñu ne ma demal ma dajale bàjjalu gox yi ñu ne ma demal ma dajale chef de quartier ñu ne ma demal ma dajale ASC e, yi ñu ne dajale étudiants yi ma dajal demal ma dajale cordonnier yi association des handicapés ñu ne ma demal commune Nord jox la bopp ne la demal waa koñ bi nee ma demal yéex nga sax dem ma dem tontu président ne ko nag dama bëgg nga recevoir waa koñ bi sama communauté ñu ñëw wax ak yow ba ñu egsee ma ne ko président loo gis si man ba may topp nii dama waaw loo ma bëggee <laughs> pour wan leen ne président moo ma woolu président moo ma xëcc du man maa daw dem ca ñoom soxla woo si la. ma ma parti dama naroon dem ko xam dañoo ñoom lu ñu signé la ba pare ci biir xol yi la. du ay jaraa parti bii la bokk wala parti bee la bokk la preuve ba ma gañee en 2014 dañu ne li fi mag président Abdoulaye Wade jaar moo tax nga gañe man leen mais attends jaar na Pikine Est Issaaxa gañe jaar na Pikine Ouest Pape Gorgui Ndong gañe jaar na jàmm gën Ndofène gagné jaar na feneen ak feneen ba point bi mu dëkk donc leen wax ju yàqu jaar na fi xëy na am nañ njëriñ parti bi tamit am na njëriñ ma ne ma validé naa ko ma rendre compte askan bi ñu ne ma demal élection ma ne woon président damay dem mouvement bu tudd yoon wi mu ne ma ko nangu da ngay seey APR ndax damaa bëgg nga jiite sama liste ñu yegg ci mu ne ma jiite liste ma jiite liste bi gagné PDS bi ma jógee cinquième la jël fi nee taxoon nga gagné ba ma fa jógee parti bi jëlul P jëlul 2 jëlul 3 jëlul 4 750 voix la man maa ngi ci 4019 kon parti bi am na lu ma doon indi bu dee téye na ko. 750 kon dëgg feeñ na daal. voilà loolu mooy histoire ndam bi ma ci am biir APR aussi am ñu fipp ne du ma leen jiite dem wut seen langue bopp jël quatrième yeewu sax moo leen raw RV sax mi ñëw barki démb moo leen raw kon ñi bañoon ci APR. président Macky Sall yaay na leen. kon yow gisoon nga galgal bi ci biir APR. gis naa xaaruma loolu yëpp man ba ma leen ne. même APR bu ma ñett woteeloon waa Pikine Nord woteel ma damay gagné. man waa Pikine Nord laa doon waxal xooluma parti politique APR ak PDS ak yooyu waa Pikine Nord laa bëggoon ñu woteel ma. waa Pikine Nord ñoom woteel xooluma ban parti la xëy sax am na ñu bokk yeneen parti wala seen parti bokk ci beneen alliance waaye ñoom ñu bëgg ma man comme maire woteel moo tax maire bi ma doon du maire ñëpp laa du ma xool maire APR laa wala Benno wala beneen parti ñëpp ku dëkk Pikine Nord maay sama yaar. nga war a dooraat mandat juróomi at. léegi laata ñuy dem foofu lan ngay wax sa naataango yi nga xam ni tey ñoom nga bokkaloon euh, élection yi yaa ngi wax RV mu nekkoon benn rivalité bi nga xam ni indi woon nañ ko fi biir euh, euh, Pikine Nord lan ngay wax ci loolu lan nga leen di wax tey. non RV jàmbaar lañ. Lamine Gueye moo ko jiite fii ci Pikine Nord mooy nekk aussi seen responsable départemental. dégg naa sax moo yor kopparu Thierno Alassane Sall. donc yaakaaroon na ne xaalis koy gagné. Ah, du non non plus ay gor lañ fi saxal boo indee sa xaalis dañ koy lekk. dañ juum. même man su ma jiitaloon xaalis ñu ñu fa ma ko. Pikine Nord ay gor a fi nekk. te duñu ay jaayil ay nandite lañ. Pikine Nord commune cerveau la. du ay ñooy xam nga dañoo yàgg politique. fii soppi fii la nekkoon première base du PDS. le soppi fii la déparé. c' commune très politique. boo indee sa xaalis da nga xoolal quatre avant dama mbootaay yëpp dama leen dem leen ci borom nag booy xef la mën naa la mitingal ma ma jox la trois cent mille ma ne gars yi dem leen amaguma xaalis quoi gars yi dem di encaisser di encaisser di encaisser ba élection yi des dernier tournant six mois ma leen ñibbisi leen non ma leen ñibbisi leen ñu tàppaas ko xuloo génn ñi xam nga finalement mu dem ba ma rocc ko ba après dafa mujj di wut ñeneen ay PDS ba mu jaxasoo mu jël fa ku mel ni Fatou Kiné Wade APR am ñu mer ne duma ma leen jiite mu récupéré leen ay genre Maguette Diaye ay xam nga Fama Sène ay ñoom Biralo bokkoon ba su ñàkk ñu la dem jël ci liste bi jiital leen pour am ay voix foofu nag laa ne jàmbaar na tuuti parce que xaalis aussi fu mu jaar am effet ci téeméeri nit boo wootee foo jaar am ci ñeent fukk wala fanweer looloo ko yóbbu moo jël deuxième rawee naa ko mille voix et quelque tribunal sax ñoo ci wàññi mais rawee naa ko mille douze voix ah, xaw ma nu ñu def tribunal j'ai dit jarul may contesté quoi eh, ba ba wàññi dóor dóor yu métti mais bëggoon naa leen rawee plus que ça man ak ñoom du woon combat parce wax naa ko ku ne man ak moom du woon combat yeewi laa tiitoon man parce que yeewi c'était un grand un grand rassemblement une coalition forte de parti comme le PUR qui est un vote religieux ngëm-ngëm la ñuy voté mhm. le Besuniak qui est un parti religieux ngëm-ngëm la ñuy voté Ousmane Sonko c'est presque religieux gaa yi ngëm-ngëm ma Pastef la ñuy voté grand parti bu Malick Gakou Malick Gakou moom benn booyam moo doon candidat Mamadou Gaye que je salue au passage qui a campagne même jaar na sama buntu ma moom yéeg ci oto bi ba sëñ Mansour si lu rafet quoi mhm. mais pourquoi ñu séntu violence bi seen digg ak ak Lamine Gueye non non man Lamine Gueye violence moom mooy yor ay violence verbale am ay attaqué pour am buzz hein parce man su bëggoon am buzz ni Barthélémy Dias def laay def ko wax ma saaga policier bu wax ma saaga commissaire bu wax ma saaga magistrat ma saaga buñ jàpp ma kaso ma def fa juróom benn weer génnaat saagawaat yooyu boo ko amee boo ko defee am tur regarde Assane Diouf donc il faut que suuf il suffit que nga commencé di def yenn bugge siiw benn siiw bu bon bi nga nga am tur il fallait que mu wut buzz ci ponkal mi ponkal yu mooy yow mais bien sûr je suis le mastodonte de la politique à Pikine je suis lion boo bëggee dégg-dëgg Pikine loolu président Macky Sall xam na ko waa Pikine ñi fiy politique képp koo ci yëkkati sa loxo maa leen njëkk nekk ci langue bi de du maire de la ville années 88 boobu kenn xamul Ablaye Timbo Abdou Karim Sall waxaaluma ko waxaaluma ay Malick Gakou yi ay Sonko tudduma leen ñooñu beneen génération lañ ku seen leader national ay Thierno Alassane boobu c'est un petit cadre bu nekk ci biir APR après Macky Sall ba mu min nga yoon bi daal donc seen ponkol yi leen jiite national laa la ñoom duñu duñu duñu match xëy na dañoo dañoo bëgg a rek man su ma bëggoon langue parti maa ñoom ñooy dem donc su ma ñëw Pikine fii seen gringala yooyu di ma jéem dëkku euh, du maa ñoom quoi du ay RV ak affaire <laughs> liggéey puisque ñoom ñëpp dañu amoon bébétu liggéey euh, pour Pikine Nord élection yi jeex na xanaa tey ñoom ñëpp war nañ mën a ñëw wuy si bokk liggéey yi waaw ci dëgg bu ñuy wax dëgg parce que man sama communication en sincérité ak vérité la ah. mënuma ñëw lu mel ni rajo ma ciy wax di wax li bëlëf loolu laa wuteeg politiciens yu bëri man li sama xol laay wax pour nopp yi koy dégg mu neex a déglu euh, am na ñaari candidat ci set yi félicité wuñ ma mooy kan ak kan mooy euh, Lamine Gueye bi ngay bi bokkoon APR barki démb dafa dem non ça veut dire du ñu jantal quoi boo woowoon boo tàllaloon sa loxo takkaleen tapis sax du ñëw wala bu ñu ñëwee dina ma bett déjà ñoom ñaar ñoon dañuy def coalition des perdants pour opposer wu <laughs> alors que mën nañ xaar ba élection jot ñu ànd doxal suñu gox. bu élection jotee ku nekk dem. no bii moom waxatuñ ko mu ngi ci ginnaaw c'est-à-dire professeur bi effacé na tableau bi quoi. mais mais je salue gentleman euh, Mamadou Gaye qui m'a appelé au téléphone. def page Facebook am félicité ma. Euh, quelqu'un comme Papis Mbow. kii bu jàll ci liste Jupiter benn conseil lañ am muy moom. il m'a appelé pour montrer sa disponibilité à liggéey gox bi parce que gox bee ko ñor. te gox bee ko fal mu falu ci conseil donc day liggéeyal gox bi. madame Fatma Mbacké c'est la ma grand frère gaña nga maa ngi lay féliciter ne ko maa ngi lay ma ma mais tu as gagné am na suñu conseil bu jàll ci yooyu naa ko yebal mu ñëw. politique bu jeexee liggéey gox bi moo des. naa ko ne ah, ah, mu nekk à disposition muy euh, Wewe Sugu. kooku déplacé wu ñëw. Euh, Maguette Thiandoum moo représenté woon gëm sa bopp une heure temps ñu waxtaan mu naan ma sax woowal gars xam nga xam nga jëli bi la rek mais <laughs> après wax la ne vraiment am na ay gentlemen yu nekk ci biir Pikine Nord violence bu su fi am mais ñaar ñi ma la wax nii ñoo fi indee gum violence d'accord du gagné élection mais dina xajamal élection def na ma ko 2009 ba koy bàkkoo ne ba na ci ñi xajamal te troisième la jëloon xaw ma quatrième donc toujours xajamal lay def ren mu jàppoon ne dina xajamal mais ma teel ko anticiper def ko dribble bàyyi ko muy xajamal man ma dem rooti cinquante barigo de militants teg am te ne bu xajamalee dix am lu ko remplacé noonu laa ne RV moom dama ko war a nombre trois candidats plus investissement ay samp laa ko tegal donc li mu liggéeyoon yëpp ma ñëw li ma ci mën a rocc ma rocc ko li mu ko mënul rocc ma bàyyi ko mu jël ko qu'est-ce que j'ai fait sama fief école Jackson Fass 12 bureaux de vote la je gagne tous les bureaux mu amaat beneen bureau ci wet ga muy 5 ba 5 bureaux ma jël 3 yi saraxe ñaar benn bi RV benn bi Yewwi beneen bi am cinq nga jël ñett yi xaaj ëppale leen non ñett yi romb naa xaaj 250 mooy xaaj bi ma jël 3 yi bàyyi leen 2 yi kii jël bi kii jël bi alors ñu dem euh, école 7A 12 bureaux la ma jël yëpp raw leen ci yëpp RV jëlul deuxième Yewwi jël foofu deuxième ñu dem Mame Yelli Badiane 5 bureaux de vote la ma gagné yëpp Yewwi moo jël deuxième RV école Elimane Ndiaye cinq bureaux la ma jël trois yi saraxe ñaar yi yeewi jël benn RV jël benn waa kon fu mu toll nii ñoom ñaar lañ amagum ku nekk ñaari bureau ñu dem école neuf RV am quatre bureaux ma am trois yeewi am deux ah, kon foofu benn bureau la ma ëppale waaye boo dajalee école neuf yëpp fi ma jël fi ma jël P maa jël P fii yeewi jël P maa jël deux moom fi mu jël paie maa jël deux boo ko boolee quatre personnes la ma rawee ci école boobu am neuf bureau alors ñu dem euh, Soxna Adama Gueye fi RV dëkk fi base RV quatre bureaux yëpp moom moo ko gagné mais na quatre bureaux la lu cinq du 6 du 7. 4 du 8 du 9 du 10 du 11 du. du 12 man fi may am 12 bureau laay raw. moom fi mu dëkk 4 la mu raw ko. waaw nag ngay rawee 4 fii. rawee am 4 école 9. am 1 ci école 5. am 1 ci Elimane Ndiaye yi ci des yëpp ñu raw la. nga ne yaa raw loolu say militant nga koy naxee pour ñu gëm donc di wax ay waxi recours alors que son représentant au tribunal départemental Hervé ñu s'appelle monsieur Ibrahima Lo. Euh, signé na PV bi avec RAS. rien à signaler léegi moom mu génn di meeting naan damay recours. léegi naa dafa dem cour d'appel di fa photo selfie naan gars yi déposé naa. tribunal ah tribunal am ñu ko gis sax ne ko dégage ici fii kenn du fi fooye donc c' est une institution lu toll ni tribunal yenn yi ay sama avocat nee ma yooyu booy yi nga xamante ñoo nopp ci moom ak ñoo ah, ne dañoo mël foofu maanaam ñi ma woteel ñëpp dañoo mël foofu <laughs> mais jigéen mun na mël foofu ci biir école yi ah, mel ni ay ninja léegi beneen beneen élection législative ay ninja laa yéen xam ninja lu ñuul lay sol. bët yi ngay gis. bu ko defee fraude bi gën a metti quoi. <laughs> donc je voudrais vraiment leur dire que. alors les deux sont pipés on a gagné ces élections d'ailleurs le le vendredi prochain. Euh, euh à 9 heures. a installé. installé par le représentant de l'État officiellement à mes qualités et fonctions de maire. ñu élire nos adjoints on doit cinq lañ ci am. installer les soixante six conseillers. dont RVS neuf. Yewwi huit donc moom benn la rawee Yewwi. Euh, après Mapenda ñëw avec trois. gars yi yeneen ñi seddoo. trois waxuma la kee huit la am Yewwi. waaw mais Mapenda mi topp ci moom trois la am maanaam li ko Yewwi rawee dafa bëri. d' accord après PDS ñëw am deux gëm sa bopp am deux Jupiter am un. man ma am quarante et un te soixante six conseillers lañ boo amee quarante et un. am nga këram am non seulement moitié bi 33 plus 1 muy 34 mais man romb naa 34 maa ngi ci 35 36 37 38 39 40 41 am naa 7 de plus. léegi waaye yeewi ñi fu tàllal loxo pour liggéey boo ci boolee seen 8 nga boole ci 2 wu bëgg gëm sa bopp boole ci un wu Jupiter boole ci voilà finalement nous aurons une majorité ek écrasante et éclatante pour diriger la commune ñi mer euh, bu dee RV 9 lañ plus 3 Mapenda muy 12 sur 66 même 20 sur 66 mhm. même 24 sur 66 ça ne nous empêchera pas de délibérer valablement euh, bàyyi leen ci puus bi te loolu baaxul donc je les invite à la sérénité à la mhm. ñu nekk ay gentleman euh, Bombardier ak Balla Gaye ba ñu daanee ba mu jeex Balla ci stade bi dafa contre bi ko jox naa suul investissement ëpp na mais après dañ leen wane émission ak euh, Gaston kii di jëndal jëkkëru jabaru kee ay fair play la daal fair play ñu nice mais nekk fii di di di di di dofloo seen militants yi naan leen gagné nañu recours bi tribunal avocat ne yooyu vraiment ay naxaate la nañ ñëw revenir à la raison man aussi seen grand la ci politique ñu ànd reconnaître ko mu jeex ok léegi ñuy dem contestation yi am biir pikin ville bi Cheikh Dieng nee na moo gagné élection yi Timbo moom yëkkati na loxoom bu yàgg lan nga ñu mën a wax loolu ndax am pëccoo nar fa am. Cheikh Dieng il fait du cirque. le cirque mooy spectacle yooyu ñuy def comme ay Sorano wala Grand Théâtre nga yor ay poupée leen fecculoo xam nga. di def ay marionnette cap cap noonu. wala xaj bi nga koy tëbloo ay yooyu c'est vraiment du cinéma quoi. est-ce que tegu ko fulaar tamit. mais tegu fulaar j'ai vu ces chiffres c'est des fantasmes. Euh, Cheikh Dieng ma wax la la bonne la bonne lecture politique de ce que fait Cheikh Dieng lan la li Cheikh Dieng def ma wax la lan lay tekki. man lan lay tekki. ah ma wax ko ak auditeurs yi déglu Rewmi FM yëpp ñu xam Cheikh Dieng euh, dafa dafa tarbiwu ay kilifa di ramper. tey su tarbiyu Amadou Diarra ba Amadou Diarra ko ba mu nekk maire Djeddah Thiaroye Kao en 2014 mu bàyyi ko dem seeti maître Amadou Sall mi mu doon sànni xeer ndax kookoo jege Omar Sarr ba kooku branché ko ci Omar Sarr mu woon ko ginnaaw te tarbiyu Omar Sarr ba mu yëgee ne Fada moo yore chargé des élections mu bàyyi ko dem di ko attaayaal ba mu déggee ne Ablaye dem na Touba nee na ma dikkee la kenn njëkku ko këram na ko grand maa ngi nii à ta disposition ba mu yëgee ne ma dikkee duloon naag parti démocratique sénégalais mu wëlbati ko waat ne Omar Sarr responsable politique Omar Sarr c' la l' arbinisme là c' est le propre de Cheikh mais nekkoon na génération di conquérir di xalamal euh, Karim Wade après il est retourné ba Omar Sarr demee ne Karim Mana Karim daf ko chargé des élections nationales du PDS mu jàpp ne loolu dina nekk responsable départemental de Pikine pour ëllëg mu nekk candidat Ablaye Diop ne ko non non sa chargé des élections nationales tekkiwul ne Pikine fii yow yaay responsable ñu xeexoo ñoom ñaar parce que Ablaye Diop nekkoon na candidat contre Timbo Timbo gagné ko muy xaar revanche cinq ans après Cheikh Dieng ñëw bëgg ko court-circuité ñu xuloo xuloo bu metti finalement Karim jël misé ci Cheikh Dieng parce que nee na Ablaye Diop jàngul sa dorñee la amul diplôme amul charisme mënul nekk meeru Pikine am na benn valeur bu mu am ci ginnaaw raay waa ginnaaw raay ñoo ko bëggal seen bopp. moom sax nee na dootul nangooti. yenn yi di xew waaw la bëgg. tubaab la toog fële ca Qatar ne Cheikh Ndiaye la. ñu ne aywa léegi ku am di xaar. élection jot mu gagné commune am Ablaye Diop avec écart bu rëy. Cheikh Ndiaye ñu gagné ko ak écart bu rëy. PDS wàllu toute la coalition wax ma PDS wàllu bi yëpp douze communes Pikine yi benn commune rek moo ci am victoire muy bi Ablaye Diop mu doon xëccoo kon bu dul woon bu Ablaye Diop bi PDS zéro lay am Aliou Cheikh Dieng lan lay jàkkaarloo Karim naan kon duma nañ ma duma PDS fépp ba mu des Ablaye Diop mi ma doon xëccool mënu ko wax lan lay wax dañ maa saaj gañe nañ ma Jidda gañe nañ ma Pikine Nord gañe nañ ma Pikine Est gañe nañ ma Pikine Ouest gañe nañ ma Dalifort gañe gañe nañ ma Ginnaaw Raay Nord gañe nañ ma Diamaguène Sicap Mbao gañe nañ ma Mbao gañe nañ ma Thiaroye Gare gañe nañ ma Thiaroye Géej kon amul benn sens ci recours bi waaye waaye maa gañe ville bi c'est-à-dire bu gañe woon ville bi accam lañ ko war a wax parce que sa commune dañ la duma onze communes nga perte am na yeewi amuloon candidat dafa am yeewi gisuñu keneen ku dul Cheikh Dieng parce que ay Lamine Gueye bu RV moo fi nekkoon Pikine ba mu nekk trois trois candidats la am à Pikine à Pikine sur les douze Pikine Nord bi Lamine Gueye nekk mu abale Gaynde Badiane bu grand parti bu Malick Gakou mu abal ko récépissé RV ak euh, Gaynde Fatma bi doon ànd ak Bara te dëkk Thiaroye sur Mer mu abal ko récépissé ñooñu duñu duñu militant dañoo mer seen parti ñu abal leen kon Lamine Gueye naka ngay nekkee benn candidat ci Pikine Nord bëgg nekk gagné ville mu dem jël cinquième avant Ndaare cinquième xaw ma quatrième sur la liste d'accord la ville donc nit ñi PA Pikine voté ko voté luñ Ibra Gueye voté luñ Daour ancien maire ils ont voté la wàllu Cheikh Dieng moo tax mu am report de voix boobu ce qui lui a valu quinze conseillers sur la proportionnelle Timbo am dix-huit mais en terme d'écart Timbo rawee na ko mille neuf neuf cent fois et quelques alors qu'est-ce qu'il explique lui en l'écoutant non à Mbao Abdou Karim ay mbokkam dañoo jóg a ñëw voté ah, mais am nañ carte électeur votant Mbao yow fexeel ba seize bu ñu voté léegi ba ñu dépouillé carte yi nan la xamee ki ku jóge Aéré bulletin bi rek la ñuy gis ubbi vraiment il fait du cinéma pour expliquer sa défaite ak lan lay wax Karim ci xaalis bi mu ko jox moo war a campagne ville de Pikine yëpp donc Cheikh Dieng damay nit ñi jàmm d'accord maa ko dégg muy wax bay dugg ci ay Pikine Nord xaw ma lan donc na yem ah. léegi Bara Gaye aussi il faut qu'on analyse so est day dellu wàllu dellu PDS waaw parce que dañ ko dañ ko supporté woon donc c'est pas lui qui a gagné c'est le Yewwi qui a gagné loolu aussi il faut que lecture politique bi waa PUR moo ko investir itam PUR parti bu bokkul ak partem moo ko investir porte ko yóbbu ko ci Yewwi yi nee na génnul PDS de ça veut dire kon <laughs> Yewwi moo gagné baara gagné wu baara bu doon gagné day demal boppam soit PDS wala mu demal boppam. da yaakaar ni bu demaloon boppam day ñaax élection yi. non du taxaw loo xam ne j'avais prédit ça. xëy na sama conseiller lu dégg ba mu daw làqatu ji ci yeewi. bon xëy na dina wax jaraa aussi dafa yee dafa làqatu ji ci. ci benn ci benn bokk yaakaar mais la preuve ah. lan mooy tontu bi. ñaata la PDS bi ma jógee di am. 750 voix man 4000 et quelque. romb nga leen. ça veut dire fa ma jógee. desaluma fa dara dama kaa yóbbaale d'accord. léegi monsieur le maire askanu Pikine noor di fàttali nii yéen a ngi ci émission gox bi ci rajo Rewmi FM juróomi at yi. di waajal match bi aussi final bi. oh si waajal final bi bu baax. alors juróomi at yi lan moo war a doon priorité fii ci pikin Nord. sol casque nekk ci chantier yi. ban ak ban. bu njëkk bi mooy centre commercial bi ma waxoon ak gars yi moom laay commencé bu ñu installé rek dossier yooyu laay dox ku ma gisul sama kër gisoo ma ci mairie bi maa ngi ci dossier yooyu ba mu commencé ba chantier yi commencé may sol casque di vérifier chantier yi ba mu pare am lu tax parce que koppar yi ma yaakaar yaakaara defar leneen te centre commercial boobu lay juddoo vision la da ngay construire une infrastructure yoo xam ne day jur buy jur du ma dem tabax école élèves yi dafa jàng te duñ fay taxe damay tabax centre commercial mu may jul ay millions ma dem tabax ci école dégg topp régler affaire u arène bi million vingt dix millions avec le ministre sport pourquoi pas moi yaa ngi koy coow kaas ba tey il faut règle cette fois sii jaral na ma mars grève de la faim tëj fii ci mairie bi ba ñu jox ñu sunu xaalis commune bi maay seen capitaine fu xaalisam nekk naa ko jëli pour lan li ma diggee il faut mu am moyen def ko c'est vrai que président Macky Sall jàppale na ma ci bu baax a baax budget bii bii 88 jox na ko commune bi dans le cadre du projet PACASEN pour ñu tabax stade omnisport gazon synthétique donc lancer marché rek laay def boobu lancer marché rek am ko ko gagné ñu dem tabax beneen bi théâtre de verdure dañ koy réfectionné jox na ma 59 millions ci fonds mu ngi ci budget su kennoon nekkoon maire boo ñëwee di ko fekk comme maa nekkaat maire moo ngi fi ndax maa ko voté kenn laal ko kon loolu lancer marché rek laay def entrepreneur bi ñëw ñu réfectionné may am projet pavé dëkk bi yëpp mbedd yëpp suuf raar fi. fii Pikine Nord fi biir commune Pikine Nord du ma dem Pikine Est du ma dem Ouest Pikine Nord laa yem. ba mbedd yi dootoo gis suuf loolu mooy sama projet phare. mais damay tabax lu ma koy may. d'accord uh-huh. am na ay temps ay étudiants benn étudiant am na bac mais mënul jàng université. ndax yaayam dafa gaañu papaam gaañu. Hmm. mu nekk ak ay sëram. mu ñëw ne ma mère lan laay def miraas bi lii laa ci am. dana ko tëggal soirée ak see waa koñ maa lay jox sonorisation doo fare dara invité say nit mu pare génnee ci 700000 ma ne ko demal doole ko sa commune tëggaatal beneen mu tëggaat beneen ma ne ko tëggal mbapat mu tëgg mbapat xale boobu tey moo ngi ñaari soxna tabax na kër ci say conseil kese conseil yooyu su ma ko appliqué ci mairie bi mhm. mooy xale bi dama ko ne tëggal manifestation lucrative bu lay jural loo mën a def sa avenir projet mais su ma ñëwee ci commune bi damay tabax infrastructure lucrative bu may jural recette recette yooyu mun ma permettre li ma bëgg a def ma def dinaa fi def zawiya kooku maag promoteur bi la waxtaan nañu Thierno Madani Tall moo bëgg ñu décentraliser zawiya mu jege banlieue bi dañ fi am piscine municipale ak maison de la femme ak maison des jeunes et des étudiants ak maison de l'outil pour artisans yi mun a am fu ñuy daje avec un plan technique loolu naa ko développé xam nga nekkatuñ ci campagne ma koy waxaat nga xam ne fii priorité la loolu laay jublu mooy mhm. sama soxla mhm. problème politique bu doon sama sama élection dootul amati ba ma réglé loolu yëpp xam damay am jotam. ok d'accord beneen bi wax naa ko mooy dama ne woon suma salaire duma ko laal. yaa ngi koy dëggal ba tey. dama koy dëggal dama koy jox mag ñi. mais dama leen organiser d'abord en Euh, en benn genre. comité fonds de solidarité communale. li ma inspiré mooy président ma Sall daf ma nommé. président du conseil d' orientation du fonds de solidarité. chion national yow nga def communal. ma def fonds de solidarité communal. fonds boobu sama koppar ci njëkk a dugg mooy salaire bi may fay. maanaam askan bi ma fal. li may fay pour ma nekk maire. loolu lay def fonds de solidarité communale. jagleel ko nag personne troisième âge. ñu bokk ci. di leen mën a dimbali ci ravitaillement yi. soulager leen. parce que amatuma dara lu may defal Pikine Nord lu tabaxal ko liggéeyal ko. bu ñu eggee élection yeneen ñëw am na sama benn jigéen. am ne mais élection yi di ñëw da ngay nekkaat maire. waaw damay liggéey ba nga xamante ne. élection yi su jotee bu campagne électorale jotee gars di def liste yi damay wax waa population bi maa ngi sama kër yéen laay déglu. da ngeen marche ñëw ne ma maire kenn dafa nekk candidat yaa fi nekk candidat. dama bëgg lu inédit. lu musul am su mandat bi jeexee. am ma naan damay bàyyi gars yi di ma xëcc naan ma doo bàyyi mu bëgg ñu dem élection comme Touba benn liste rek am fi parce que ku nekk sama wet xam nga ne kii boo demee dañ lay gagné ndax lii mu fi def ba kenn du nekk candidat benn candidat rek am fi benn liste rek am fi ma jiitu ko gagné ok loolu hmm. su ma ko defee ça euh, gravé dans les pyramides au sommet des pyramides de l'histoire politique de Pikine et du Sénégal ok mais paj mi tam lu am solo la foo ci toll ak lan nga ci jublu ci lu jëm ci wàllum infrastructure yi tam lu am solo la euh, soxlawuñ infrastructure parce que campagne bi am ko doon wax waaw tabaxul dispensaire mais namuñu dispensaire on en a trois Timbo tabax na benn ci dis ci la ko affecté ñoo bi am nañ benn ci Daaru Xudus moom laa tuddee imam Madani li am ci biir maternité bu ma tuddee Cheikh Ahmed Tidiane Diop bi ci tali bu mag am na dispensaire bu mu tuddee Ibrahima Seleña ndax këram la woon mu abaloon ko Pikine nekkoon ab conseil municipal Ibrahima Sele Ndiaye ñu war a def dispensaire mu génn këram abale ko dem ci beneen këram ma nekk maire xam histoire boobu xaw ma góor gi ma ne ko tuddee ki abale woon këram ba moo nekk tal mag kon man bu lu may wutaat ci dispensaire te ma am ci ñett te Dominique nekk ci wàll ja donc am nañ infrastructure sanitaire yu doy. Ah. li ci des mooy di leen jàppale en tant dans le cadre du CDS. donc je suis le président di leen jàppale ay subventions chaque at. rond bi moom xanaa léegi bàyyi nga ko. man rond point Dominique. oui ñu doon man mooy mooy waa Pikine Ouest <laughs> ak seen directeur de cabinet. bon dégg naa après li ma li ma ci nettali mooy directeur cabinet day doog a falu jamono yooyu Pape Gorgui Ndong dafa remplacer directeur de cabinet am. xuloo a ñëw mais daa bëggoon am l' éléphant mu am waaw kooku bu ko attaqué wax rond bi ci ñu la bokk après buzz bi xam nga yéen journaliste yi ngeen kii ko mu am buzz mais malheureusement gañewaatuñ seen commune. mais foofu noonu rond point boobu. du woon mbiru rond point. mbiru frontière la suuf yi ca booru armée la lañ doon wut. parce que bu ñu xëccoon rond point ba am ko rek dañ koy tàllal dem lu tëq ci arène bi. ñu mhm. taf ko ci seen commune. léegi nit ñi jëliwuñu woon. comprendre xam nañ ne amoon naa fa projet boor boobu. mais finalement bañ demee attekaay max président Macky Sall buy wax sax daan mais xanaa Pape Gorgui Ndong xamul xamul fu Pikine commencé ak fu mu yem mais yéen seen seen différence bi boo jógee surtout surtout ba jàdd ci armée li foofu mooy seen frontière mu ne ko ah président ndax nga xam voilà donc pour wax la. loolu c' était un débat bon. de profane. Euh, mun dugguma ci woon booy ñoo leen bu fekkee da di caaxaan ñëw leen fekk ñu fi. donc ce débat était clos. Mhm. léegi li ci des mooy infrastructure yooyu boo gisee actuellement ñoo koy sëkk. foofu la ñuy porter les quatre hectares président de la république nous donné. waaw parce que yàqkat yi itam ñu ne. <laughs> président may na ko suuf may ñu ma dërëm man sama jëmm. commune Pikine la jox quatre hectares yi ah, pour mu <laughs> mu fay salaire bu ñu ko falee yow foo teg loolu. parce que ki fi nekkoon muy Aliou Sall. di ràqu président de la République. def na ba sonn mais daaw na am problème fay salaire. influence am def na ko ci tabax lu bëri ci géejawaay mais jëlee ko woon ci. ay recette propre am ay partenaire la ko doon wute Ahmed Aïdara background mayu ko mu am loolu am nga mun naa ko bañ a tudd parce que suma raxala bokk naa ci ñu jàppale ci carrière am xëy na du ko dina ko mun sa weddi xam naa mais dafa juum ci élection yi daf benn vidéo déclaré tugg ci Pikine Nord naan waa Pikine Nord wateel leen waa RV ndax ñi fi nekk yàgg dañ leen di nax donc man la attaqué moo tax man mii magam participer ci carrière te participer participer wul sama bos maa xam niveau ba xam ne amul compétence su

mu nekk maire Yewwi am nañu expérience ci wàllum décentralisation je peux citer xalifa Sall tey ji jàppaloo ni mun nañ ko jàppale ci wool kon kon kon moom kon moom ay géej Guédiawaye la mais amuñu maire Guédiawaye hmm? man fii fauteuil bi man rek a fi toog maay diriger loolu maay coach équipe bi mais bu fekkee ñi ko jàpp ñooy coachandoo équipe bi kon Guédiawaye ay maire la am dañu war a wax saal Sall euh, Ahmed Aïdara et compagnie ñooy maire mais bu dee mais je parle de Ahmed Aïdara je parle de son son niveau de coaching de management ay du laaj rek c'est une réalité Guédiawaye recette propre am mënul fay les salaires de Guédiawaye la masse salariale premier mois bi dina am problème deuxième dina am problème troisième bi dina am problème quatrième bi dina am problème cinquième bi dina am problème sixième bi dina am problème mais septième bi la coow di jóg maa lu tax ma wax parce que dafa am système bu ñuy wax soo fayul salaire état mun na la lebal boo bokkee non mun na la lebal c'est-à-dire am na bataaxal booy bind percepteur am noo koy bindee mu lebal la ba sa yéen recette ñëw waaye am na fooy toll lépp amatul ndax bor du amanta raq bu ñu yeggee septième mois yuuxu dina jóg man maa la wax lii dinañ la woo waxaat la nañ ci waxtaan ma gën a la tojal wax la terme yi ni mu tudd wax la lettres yi bataaxal yi ni mu tudd parce que c'est l'expérience de centralisation qui se parle lañ wax. gis nañ ñi itam expert en décentralisation parce que ñun tamit ba ñuy ñëw ñu ay loxoy kese. am nga xam-xam ci wàllum décentralisation xëy na li nga wax am na fi nga ko teg. fu mu war a jubbanti koo kay. ba rek la lool xanaa mënuloo ko wax moom. bu dellusee nag comme suma raxala bu dellusee toog fii ne li nga wax. damaa bëgg d'abord li ma la tooñoon ma jégalu ci. mais li nga wax nga wax ma nan laay def mu bañ maa daal. bu boobaa. du ko fay ko dara naa ko conseiller en tant que consultant wax ba loolu du ndax conseil naa ko ndax mu bañ koo jaar ah nañ siwal ne. mu am dellu si na jéggul waaw. ku monsieur le fanweeri fan ak benn ci weeru sulet la ñuy dem ci élection législative conseil des ministres adopté nañ ko kon ñu ngi jëmaat ci yeneen échéance waajalaat bi duggaat ci élection ndax na woon fa woon lay doon. Euh, dimanche si minuit laa commencé campagne boobu dimanche 23 yooyu élection yi bañ pare dimanche bañ pare minuit laa génn sama kër commencé campagne boobu. élection yi ba yi génn mu dajaloo ma génn sama kër di caravane ci guddi googu laa commencé poser les jalons d'une campagne pour les législatives. président Macky Sall nee na gañ daanuwul ci élection yi moo gagné. ndax vague yeewu yi ni mu bàyyi leen fi. na na bu ñu demee ci élection na yeewu gagné yi mu gagné woon ñun ñu gagné yi mu gagné woon ñu xool ko yoroon. c'est seen bopp la ñuy nax. ak yenn journalistes yi am ils sont complices. des journalistes partisans euh, euh, comme Ahmed Aïdara xam nañ ne ñëpp yeewi la bokk léegi. mais toog di wax naan ay euh, géejawaay xaw ma gaz xaw ma lan ay sunu 400000. commencé na waat xëy te tuddul 400 000 ça veut dire c'était pas honnête sept nga topp benn nit di ko xalaat di ko xarab di ko xarab ci sa ci sa médium amul possibilité tontu la sept ans ba li nga wut nga am ko nga noppi xanaa kon problème yi mu doon wax daa jeex quatre cent dañ koo fay loo tax Ahmed Aïdara da doon utiliser maillonu sénégalais pour am postam ba mu ko amee la noppi c'est pas honnête y a d'autres qui font la promotion de Sonko Sonko gagné na fu mu gagné wax ma ko Kaolack de Serigne Boubou moo gagné Dakar Barthélémy Diaz la bokkul Pastef fa Sonko gagné mais Yewwi la bokk Ziguinchor je parle de Sonko am nga xam te Sonko la teg ci kaw Sonko moo am doole moo ëpp Sonko dirige dirigé wul dirigé wul Dakar c' est Khalifa Sall et mun nañ bañ a ànd législative hein. ah bon yow gis nga loolu. non xam nga aussi boo xamee ki nga jàkkaarlool moo la ëpp doole fuuf te ngeen di ñett. soo leen muusee da di booloo loolu moo leen dal ci yéen <laughs> parce que xam nañ kii ñu jàkkaarloo moo leen ëpp doole. mais législative yi jëm c' déterminant. oui c' déterminant parce que ça te permet de gouverner dans le l' exécutif il y la tête il y de la république. Ouais. et mais il a un gouvernement avec un premier ministre qui est le chef d'orchestre ñoom ñooy incarner l'exécutif de la politique définie par le chef de l'État mais il y a ce qu'on appelle le législatif c'est-à-dire mooy ñiy saytu dépp loi di ko voter pour jox ko justice mu appliquer ko ñooy délibérer également su l'allocation budgétaire bu ñuy affecté le l'exécutif chaque ministre député bi moo na naan koppar nangam laa la jox natal la natal la kon député am na solo boo amul majorité soo su gouvernement bi day daanu di ngeen def lépp pour am majorité. waaye def lépp li normal <laughs> du ma wax lépp. <laughs> mooy jarul fraude. dañuy six mois yi dafay baax ñu xool Sonko lu muy def Ziguinchor ak lan lay wax waa bi jóg ci yow lan lay wax. seen ñi gagné commune la ñuy def ñu commencé def état des lieux fay personnel ak nangam nangam. dinañ xam lan mooy gestion après nag maintenant li tax les législatures sont déterminantes si jamais l'opposition gagne ça veut le chef du gouvernement proviendra de l'opposition premier ministre du gouvernement bi opposition lay doon. Sonko bu ko bu lay doon. waaye premier ministre bi ci opposition la. cohabitation mu nekk cohabitation. par force ngeen di ànd kii toog pale kii dem primature yor ay ministre am député yi lu mu neex ñu votal ko. loolu mooy Macky puusal. loolu moo tax loolu. mooy xalaatuñ ko parce que ñoo ëppale majorité dinañ def nag ba fekk sax gars yi si yuñ jotoon gars yi ñu nangu weer mun ngeen fi jubbantiwaat ba taxawaat tem mais c'est facile mais man lu tax lu tax ok élection locale yi. ñaata parti ñoo am. yu bokk APR yu tasaaroo. bari na bu doon législative dañuy booloo. gis woon ni ñeneen dem jox la benn exemple benn bokk yaakaar dañ koo gañee Thiaroye gar hmm? mais daf si Mbaye Sène dafa am listam Mbaye Sène ak euh, Babou Sène bu ñu boole woon yeewu du leen jege demal jidda caare ko Modou Gueye moo da gañe mais waa réew mi dañoo génn ci majorité dem seen liste am waa APR yu leen jàppale suñ doolee koo ci lu Modou Gueye législative yi ku leen ku leen di jege du li ñu roy woon Cheikh Dia duñ ko gën a rawee lu ëpp lool. lu tetaan ci département bi Pikine Nord bi un Mapenda dafa égaré mu dellu si këram la mu amoon su dellu see ci fii. yokku gëm dina dellu si gaw ma ko gaw ma ko gaw ma ko même bu amee dina ma bett te bu amee bëgg naa ko mais gaw ma ko. xala ko daal. non dama xam nit ki. ensuite politiquement da ko waroon def. waruloon dem tey bu demuloon mun na nekk candidat député fii Pikine Nord du maa koy fal mais dañ koy jàppale ndax man du ma jël pépp jël pefet maay maire fekk si APR moom muy APR di bëgg bëgg dem président Macky Sall woo ko ne ko bàyyil mu ne waaw muy ñibbi mu jox ko passe pour duun mu jël passe pour campagne su ñibbisee daa waroon bàyyi su ko nitam mi mu wër bañeele sax mu ne président man kat bàyyi naa nitam yi bu ñu wéy ñu wéy mais moom mu bàyyi président dina ko fayee investissement investiture législative ah. peut-être Pikine wala national mm. boobaa ñun mun nañ ko ci jàppale maintenant maintenant ni mu défier président ay déclaration am ci dem ci élection jëlul pays jëlul deux jëlul trois. Mhm. après président dina ne kii kat dëkkati lu mu doon bëgg yëpp nii la toll. kon bu dellusee moom lañ koy nattal wala luñ koy ëwalee lu ndaw lay doon benn nomba loxo. Mhm. te loolu mérité wu législative. moo ah. tax bu ko calculer xëy na mu wuti ko ci yi dem charmer Ousmane Sonko buuxanteeg waa Pastef d'accord. mën naa buuxanteeg waa waa Pastef pour dem élection législative. wala mu buuxanteeg waa RV. nga xamante ne Pikine rek la ñu am. pour bokk ci département bi am ci poste. Mhm. defee ni ñu leen def nii après xëy na dina retraité. léegi monsieur le maire presque ñu ngi ci njeextal émission bi ñëpp a ngi waaj di xaar Sénégal mais gouvernement bi euh, Macky Sall dafa war a tabb premier ministre ñu ci bari tey ñu ngi xaar consulté nañ la. ba tey de kenn conseil ma xëy na xëy na bi jamono may émission bi ndax sama téléphone sonné mais fii ba nii nii nii président consulat maa ngi déggante ak moom nag par courrier euh, félicité na ma ci élection yi donc euh, war nañ gisee am na lu bëri lu ñu war a waxtaan ndax dañoo diggante woon demal gagné ji te ñëw mhm. ah, ah, Amadou Diarra ministre lu ñu mën lu lu mën a nekk la de. Euh, ministre président premier ministre dara jommu ma ci dëkk bi. lu nekk attan naa ko waaye man damaa bëggewul man suñ ma nee kaay bale ñuy xëccoo bale ba ma gañe bale damay bale ji d'accord président nee ma jógal fii lii laa la soxlaa pour réew mi ma dem foofu looy xaar ci guvernement bu bi nga xam ne war na ko te war a tabb premier ministre mais gouvernement fighting lu ay gouvernement technocrate on a un président technocrate ingénieur qui est au, au, euh, au parfum des enjeux sur le plan géopolitique national international xam nañ également tey Afrique tool bi mu fiy joué donc dafa am un gouvernement développement mais fighting sur le sur le politique parce que tout simplement les enjeux sont plus importants Sénégal lu ëllëg ci lii lañ koy déterminer daa day ay ennemis Sénégal yu nekk ci bitim réew pétrole Sénégal moo leen di xeeñ ñu soxla ko mais Macky joxu leen ko ñooñu yàkkamti woon fukki at attan nañ ko pour pour torpiller contrat financier euh, pétrolier yi yow mii bu ñu la gisoon léegi xam ne ne yow ëllëg mun nga tekk ci réew mi dara mun leen a jox ay millionnaire demal daane nguur gi parce nguur gi fi ne joxu leen ci pétrole bi dinañ képp ku bëgg a daane nguur gi ngir nga dig leen signé ak ñoom pour pétrole bi ñu mos ci parce que suñu pétrole moo dàq bu Dubaï déggoo ma demee ba je le dis à l'endroit de ñëpp ñi lay dégg Sénégal a pétrole pur plus pur que le ko jagleel xëy na sunu jaar la léegi nag pétrole boobu ñu gars yi buñ ko gëstoo ba xam ko da leen jaral àdduna ak li ci biiram mun nañ jël téeméeri milliards perte ko ngir daana nguur gi ngir kii ñëw signé leen lañ dig Sonko moo tax du ñàkk moyen yaakaamte wuñ buñ ko dóoree élection yi sax dañ koy wutiwaat tant que mosuñu ci pétrole bi ñu signé leen ay contrat duñ bàyyi ñooñu ñooy ñoo bëgg a yàq avenir u Sénégal moi je préfère sax kilifa diine yi waxtaan ñëpp waxtaan parti politique yi waxtaan Sonko ñu def ko ministre de l'économie et des finances ne ko toppatool impôt yeeg yooyu bii nii bii bu bees bi bees bi nekkul lañ bàyyi élection. yaakaar nga ni dina ko jël. non du ko jël damay mbalak nii rek. c'est-à-dire juste pour dire. li ma yéene man Sénégal mooy ñu arrêté politique politique. liggéey dem liggéey. ñu jël pétrole bi fi nekk. waa Sénégal jëriñoo ko yow doo fi nekk ti journaliste. sa 4-4 ngay yore yor sa R plus 4. doo liggéeyati di ñaq. sous région bi ay nit la ñuy jël fii ñuy liggéey. képp ku am carte d'identité Sénégal doo liggéey sa pétrole bi moo lay fay. mais xanaa bëgg ñu baax. ah bëgg nañ ko kay. léegi nag Sonko moom ñi mu dikk ñooñu ñoo bëgg lu baax ak moom pour mu toog yoonam ci Sénégal moo tax xeen lay waxee. xeen xeen lay waxee gars yi fii le 26 mars ba gars yi ne non leen forcé mais daf leen ne déedéet bu leen forcé parce que xam na ne bu gars yi forcé woon armée bay jël nguur gi te du ko arrangé léegi Sonko intérêt personnel am lay dox agenda bu clair ak ñamu waxal di ko jox muy job Sonko soxlawul salaire tey bu bëggee meeting fii ñu ne 100 millions la gars yi réglé 100 millions def ko mu ñëw toog mi Sénégal il faut ñu def très attention kan mooy Ousmane Sonko ak kan la waxtaanal ak ku ko may fit ak fii mu jëm ndax njëriñam la wala njëriñu Sénégal moi je considère que njëriñam la. léegi monsieur le maire euh, laa ñuy tëj émission bi yow yaay président du conseil d'orientation du fonds de solidarité nationale nombo tànk boobu la la euh, njiitu réew mi Macky Sall tabb euh, en une minute deux minutes lan nga ñu mën a wax ci li nga xam ne moom lañ la teg pour nga jiite ko. ñaar laa la si wax benn bi mooy président Macky Sall laa ci gërëm d'abord. moo xool xëy na raaya yi ma am ci doxalinu mairie bi am na jara bu ñu ne lan mooy secret ñu ne social am dafa am yërmande dafa mën a dimbali ay nit bëggul dégg jàmbat te faju ko bëggul gis rongañ te fer ko Amadou Diarra looloo tax muy gañ gaa yi ñu def ay sélection ay ONG le meilleur maire inclusif et social du Sénégal deux ans yu tegaloo may jël pay te nekk opposition kon du koppar yi ma yor mais xol la ma am sama benn imam buy yox ne Amadou Diarra mën nga ko ëpp alal mën nga ko ëpp tur mën nga ko ëpp pouvoir mais gën a yéwén mënoo ko donc man bu ma amee rek population bi laa fàtte sama bopp. tabaxuma kër teguma prix soxla ma oto bu may jënd fekk maa ngi gis ku ñuy génnee location wala ku war a faju te fajul soxla ma ko je n'investis pas comme fii may waxee yow ni barki alxuraan karim aw ma compte bu am cent cinquante mille. billaahi wallaahi wa taalaahi aw ma compte bu ma denc cent mille. parce que du ma téye xaalis. tey dégg jàmbat bu déggee loolu ci man am renseignement yi xam ne loolooy sama force politique te loolu aussi mooy suma gàllaaj soxlu ma takk téere xool yi nit ñi am ci man ak xool yi ma am ci moom mooy suma gàllaaj moo tax président ne kon man naa ko jëlee nawetaan yóbbu ko Ligue Pro maanaam social bi muy def ci commune am ah. naa ko ko jox ci national mu jox ma fonds de solidarité nationale teg ma ca bopp ba pour ma jiite kuréel buy orienté ndimbali ci Sénégal donc yaa am nañ directeur général ah. monsieur Ndaw un excellent cadre euh, jox nañ ko jumtukaay jox nañ ko budget yi orienté nañ ko ci nan lañ ko bëggee ah. danaa ko bul fàtte ne banlieue laa dëkk <laughs> fa la affaire tare <laughs> bul fàtte ne mënd bi dinañu sonal mooy dee fay jublu <laughs> ah mooy euh, jëmbal. Uh-huh. oto yi jóg pour daw dimbale ci. bu njaaree banlieue nañ arrêté quelques minutes. door a départ door a départ dem ci Sénégal gi yëpp. monsieur le maire émission bi jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di suñu mbokk auditeurs yeeg auditrices yi di wax ni rek ñu ñaanal Sénégal tey ndam li voilà. waaw Sénégal laay njëkk a ñaanal ñu am ndam. réew mi TV yàggatul dina ñëw. waaw bu ma ñaanal mu am télé suñu amoon télé tey ba nga gis vert jaune rouge yi ma sol. ah takk samay euh, vert jaune rouge takk zone tey macha allah dama verte zone rouge. pour vraiment ndam li ñëw pour mu jig ñu donc yéen aussi gannaaw Sénégal yéen maa ngi leen di ñaanal. di wax rek ne pikin laay mujjee. rawatina Pikine Nord. maa leen wax ne aw ma seen fay man. aw ma seen fay ñoom gloria bu far laa leen jàppee amuñu moroom benn lañ fi seen fay bi ma am rek mooy jaamu seen soxla te campagne taxul ma koy wax ndax gañe naa ba pare mais man maa am cofeel ci Pikine di wax ne képp kuy cadre soo ñëwul bokk ci développement bii ñu jëm nga xamante ne yaakaar la bul am lay yaa ñëwul ñëpp laa tàllal loxo ku ñëw am nga foo ci bokkee ku ñëwul sa sañsañ la mais bu kenn lay ne maa la woowul damay jaar ci réew mi FM pour xibaar ñëpp ne lii ñu ma dénk ndénkaane la du moomeel képp kuy doomu Pikine rawatina waa Pikine Nord am nga ci foo mën a dugal sa loxo pour jàpp ci man maay management du ma def damay defloo ay nit donc xalaatu ñëpp laa soxla loxo ñëpp laa soxla xam-xamu ñëpp laa soxla maa ngi woo ñëpp di leen gërëm ñoom di leen féliciter donc di leen jox rendez-vous après laa fet bu ñu gañee coupe bi ñu génn ci mbedd yi feete ko sans violence après Sénégal jëm kanam Pikine Nord topp ci ok koy sant di ko gërëm bu baax a baax moom monsieur le maire Amadou Diarra ci disponibilité surtout amul fu ko dul woowee mu wuyu siñu donc tey émission gox bi nii la woon dimanche rek di ñaanal rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di gaynde yi ñu daal di indi coupe bi ñu ngi leen koy ñaanal bu baax a baax ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité fii ci rajo Rewmi